waay waay ndey Xadija waay moo tax bisu tey bii moo tax bisu tey la mu lebaloon yàlla la yàlla yàlla fay ko ko yàlla moo fi sang adduna yëpp tey moo fi sang ñun ñëpp tey ñun ñëpp tey képp ku ngeen dégg mu ne Sarif la képp ku la kooku sëtu Fatimatu Zahra kooku sëtu Fatimatu Zahra ñëpp sang ñëpp mooy seen sang Imam Borom Tuba Imam Borom Tuba Imam Abdullahi Imam Ulai Abdul Qadir Jalani Imam Tijani Imam Nyeb Kuti Sesarif Bir Imam Nyeb Kuti Sesarif Bir Dan Mufati Mato Saranga Tei Moi Sangu Sangi Tei Moi Sangi Sangi Kon Digen Ni Kon Digen Ni Lo La Len Bugun Lo La Len Bugun Bakhe eh. Cigam Mugi Cigam Mugi Ne Uti Len Bakh Uti Len Bakh Yom Muna Len Top Yom Muna Len Lom Lom Du Bakh Yom Muna Len Lom Du Bakh Yom Muna Len Yal Nilen Kuyala Mayan Yal Nilen Kuyala Degel Cidara Jajirun Cidara Jajirun Cidara Jajirun Muhammad su ko defee kon su ko defee kon ñu góorgóorlu ñu ne adduna xam ne adduna yàggul yàggul te fi ñu toll nii te fi ay mag lañu ñun ñëpp ay mag lañu mag nag day mag du bon nag mag nag du bon mag warul bon mag warul bon su bonee def lu ñaaw su bonee def lu ñaaw def erreur bu mag def erreur bu mag ndax ndax xamul kañ lay dajeeg boromam xamul sax warul bon xale sax warul bon adduna bi nag li ko yàq. adduna bi nag li ko yàq. mooy ñun ñëpp dañu naagu. mooy ñun ñëpp dañoo naagu. dañoo foog taxaw na. dañoo foog taxaw na. ña nga nu ñu neex lu mel. nu ñu neex ñu mel. loolu amul. loolu amut. ñu ngi ci àdduna ba léegi dal xel bi ñuy dal xel. dal xel bi ñu dal xel bu rëy na ci ñëpp génn. na ci ñëpp génn. bu kenn dalati xel kenn dalati xel. bu kenn naagu. bu kenn naagu. Cheikhou ci tariqa bi. boo xam ne. mooy dal xel. mooy dal xel ne képp ku dal xel. ci tariqaam. dagg ci tariqa ndax yàlla wax ci lu wër. ndax yàlla wax ci xel. bul am banaagu. bul am banaagu. man gis naa ca Dakar. mu moom mii gis na ci Dakar. amoon na bato boo xam ne. amoon na bato boo xam ngi tudd Masaliya. mi yi ñoo ko moomoon. français yi ñoo ko moomoon. Masaliya yem na ni fii ak kër Adji Amin. Masaliya yem na ni fii ak kër Baye Adji Amin. moo ko ëpp sax. moo ko ëpp sax. am na ku ko mos a sarse Sénégalais bu ko mos sarse. am na Sénégalais bu ko mos sarse. marchandise. marchandise. jël avion ñibbi laata bato bi da ñëw. laata dafa paralysé. dafa paralysé. allahu bato ba. déchargé bato ba. dañ koo déchargé. ko koo déchargé. naa ko teg naa ko bët. mu ne ma gis na loolu te teg na ko bët. kon kooku yàlla wane na foofa. kon yàlla wane na foofu. naagu naagu amul. ne naagu baaxul. ndax ci kattanam lay liggéey. ndax ci kattanam lay liggéeyee. du iñaan. du soxor. du soxor. julit du añaan julit du añaan julit du soxor julit du soxor nañ fexe génne añaan suñ biir nañ ante jàmm nañ fexe yéene ante jàmm nañ bëggante nañ fexe bëggante nañ yërëmante nañ adduna jaru ko. adduna jaru ko. li xew ci adduna bi. li xew ci adduna bi. Iisa bnu Maryam. Iisa bnu Maryam. dafa waxoon ne. dafa waxoon ne. la ñuy jaay ca marché ba. la ñuy jaay ca marché ba. nit a ko gën fuuf. nit a ko gën fuuf. ëpp ko maqaama. ëpp ko maqaama fuuf. jarul yàq bokk. jarul yàq bokk. jarul ñaaw. jarul ñaaw. Iisa ko waxoon. Iisa ma ko waxoon. la ñuy jaay ca marché ba. la ñuy jaay ca marché ba. nit a ko gën a foor. nit a ko gën a foor. jarul ñaaw. jarul ñaaw. jarul yàq bokk. jarul yàq bokk. kon nañ àndandoo. kon nañ nekk ay jaami yàlla. nekk ay jaami yàlla. nañu bëggante. nañu bëggante. nañu suturlante. nañu suturlante. doomu aadama. kenn mënu ko mën toroxal. kenn rek moo ko mën a toroxal. mooy yàlla mi ko bind. te waajul pour toroxal. sax pour. يلا واجل بريق يلا واجل بريق أمن يفير يقمن أمن يفير يقمن يلا سطران لين يلا سطران لين بب يوم القيامة تخوي يوم القيامة تخوي بولين لك بولين بندم سفر وجانم بندم سفر وجانم دفع أود بيني مير مير لينكو دفع أود بيني مير مير لينكو بكين دلين جس بكين دلين جس seetal loolu seetal loolu yawmal qiyaam am na yéeféer yoo xam ne am na leen suturaal yàlla dañ leen bu leen ay lakk bu leen ay lakk ba miira leen benn miir boo xam ne ba miira gis kenn du gis waaw kuy kuy suturaal yéeféer waaw kuy suturaal am yéeféer sa safaroo jaxanama ndax bañ nga romb ko ndax bañ nga romb ko yow julit bi naan diwa ngi naan diwa ngi ne kon ku bëgg a toroxal jaamam ci àdduna ku bëgg a toroxal ab fii ci àdduna bu dee jullit la bu yow yaay torox rek yow yaay torox rek wallaahi te boo demee sóoratu kahfi te li ma wax lu tumaranke la li mu wax lu tumaranke la aaya ba dama ko fàtte aaya ba daf ko fàtte mu nga danaa leen am safara jaxanama am fu ñuy suturaale yéeféer waaw kon jullit naka dafa war a mel kon jullit naka dafa ak mbokk jullitam ak kon nañ suturalante kon nañ suturalante nañ yërëmante nañ yërëmante nañ yàlla ji ñuy jaamu yàlla ji ñuy jaamu mën nañ ko am mën nañ koo am ci dul rakkaa yu bari ci dul rakkaa yu bari mën nañ ko am mën nañ koo am ci dulul takkoo koor ci dulul takkoo koor mën nañ ko am mën nañ ko am ci dulul yoonu màkk yu bëri ci dulul yoonu màkk yu bëri mën nañ ko am mën nañ ko am ci dulul sarax su bëri ci dulul sarax su bëri foo koy jëlee foo koy jëlee bëggal jaamu yàlla bëggal jaamu yàlla yi moo gën a for jaamu yàlla moo gën a for sax jaamu yàlla bëggal jaamu yàlla yi yàlla yi moo gën a for jaamu yàlla moo gën a for jaamu yàlla leen bëggee rek yàlla dina la bëgg te boo leen te bu la yàlla bëggee bu yàlla bëggee bëgg yàlla mooy lépp bëgg yàlla mooy lépp lépp ci bëgg yàlla lépp nag mi ci bëgg yàlla kon nañ bëgg nañ bëggante kon nañ bëggante te beral nañ ko beral mbëggeel nañ ko beral mbëggeel nañ ko bëgg nañ ko bëgg nañ ko yëg nañ xadijatu nañ tabe nañ tabe jullit dafa war a tabe jullit dafa war a tabe yonent bi yonent Muhammad daan na wax Bilal ibnu Rabah daan na wax Bilal ibnu Rabah ne ko bu ragal ñàkk bu ragal ñàkk daan na ko am na ku ñuy wax sax ibnu Sajjaar. am na ku ñuy wax sax ibnu Sajjaar. alkarmaani. alkarmaani. sa Iraq la dëkkoon sa Iraq la dëkkoon. ku baax la woon ku baax la woon. dafa am benn bés. dafa am benn bés. muy dox ci àll. muy dox ci àll. moom buur la woon sëriñ la woon sëriñ la woon. sëriñ la woon. sëriñ la woon. da dox ci àll. di dox ci àll. ba fekk benn xale bu góor. ba fekk benn xale bu góor. mi ngi ci àll bi di jaamu yàlla mi ngi ci àll bi di jaamu yàlla. da da lekk ci ñax mi. da lekk ci ñax mi. da naan ci déeg yi. da naan ci déeg yi. Cheikh gis ko Cheikh gis ko sop ko sop ko yene ko domam yene ko domam bu jigen bu jigen bo xamne moko yar bo xamne moko yar dal ko wo dal ko wo indi ko ci kergi indi ko ci kergi te bes ba te bes ba may ko ndaw si may ko ko ko ko ko ne ko demal and mom dem ko demal and ak mom jox len ay mburu jox len ay mburu bu ngeen demé ngeen reer ci bu ngeen demé ngeen reer ci mom xamna domam mom xamna domam bi dom ji ñëwé bi dom ji ñëwé ci kër jëkkër ji ci kër jëkkër ji ñu reer ba pare ñu reer ba pare jëkkër ji jël benn mbuus jëkkër ji jël benn mbuus da jël la desoon ca ñam ba da jël la desoon ca ñam ba da ko def ca mbuus ga da ko def ca mbuus ga da ko takk da ko takk ndaw si ne ko ndaw si ne ko lii pour lan la waaw lii pour lan la ma ko dama bëgg ñu ndekkee ko mu ne ko dama bëgg ñu ndekkee ko ndaw si da jooy ndaw si da jooy di jooy di jooy ba ba set ba ba set ma ko foogoon naa yow doomu buur nga mu ne ko foogoon na ne yow doomu buur nga naa doomu buur nga xamoon naa ne doomu buur doomu sëriñ nga naa doomu sëyal xamoon naa doomu sëyal nañ dem ma delloo ji la nañ mu daal indi xale bi mu daal indi xale bi baayam ci kër baayam ne ko sa jaa ngi nii bëgg nga ma lool bëgg nga ma lool doyloo nga ma lool doyloo waaye nag moom bëggu ma waaye nag moom jooy la fanaanoo mu daal di gëstu doom ji mu daal di doom ji ne ko rusloo de ne ko hey rusloo nga ma de fooga naa péyeb yàlla bi fooga ne péyeb yàlla bi ak ni ma la yare ak ni ma la ak looy bañ ak looy bëgg mu ne ko bàyyi mu ne ko bàyyi daf ma laajul de daf ma laajul de waaye su ma laajoon du ñëw waaye su ma laajoon du ñëw bàyyi dama bëggoon nga may ma ku tabe bàyyi dama bëggoon nga may ma ku tabe may ma ku gëm yàlla may ma ku gëm yàlla may ma ku óolu yàlla may ma ku óolu yàlla ma ko li yàlla am ci wata boor ma ko li yàlla am ci wata boor ñam bu bees tàq ñam bu bees tàq doyloo gëmu ko gëmu ko da deen ci murum démb da deen ci murum démb nar koo ndékkee nar koo ndékkee kii mënu maa gëm yàlla am kii gëm yàlla am doyuma gëm yàlla doyuma gëm yàlla am doyuma doyuma man wata bool lay dundee man wata lu ma ëllëg dara. denc lu ma ëllëg dara. yàlla laa am. yàlla laa am mi am. gis na ma gis na ma. kon loolu. kon naa tax nit ki. war naa tax nit ki. bàyyi xel ay dëkkandoo. bàyyi xel ay dëkkandoo. ci denc ndesit. ci ndesit. boo xam ne suba la jëm. boo xam ne suba la jëm. yonent yàlla Suleymaan. yonent yàlla Suleymaan. doon na doxantu. doon na doxantu. ci géeju dëj la. ci géeju dëj la. ba gis fa lu ko yéem. ba gis fa boo xam ne. boo dafa génnee ci ndox mi. dafa génnee ci ndox mi. maanaam benn mbott. benn mbott. bu génnee ci ndox mi. bu waaw melentaan bi moom la njëkk a gis. melentaan bi la njëkk a gis. dafa taxaw ci terrasse bi. dafa daal di mbiib. daal di mbiib. xam ngeen mbiib mooy li ñuy wal muy sob. xam mooy li ñuy wal muy sob. nga liir. nga liir. daal di wal nga daal di wal nga benn mbott génnee ci biir ndox mi. ñëw ci tefes bi. bi. melentaan bi war. melentaan bi war mbott mi. ci mbott mi. ci mbott ci biir ndox mi. mbott mi dugg ndox mi. ba ca benn doj. melentaan bi mbii baatu. melentaan bi mbii baatu. benn doj bi. génnee bi. melentaan bi soxal ko soxal mi ñëw. mu war ko. mu ci tefes bi. Souleymane ne ki mën a dundal dundal. melentaan bii bii ci biir ndox mii. moo yor jaamam bi kenn yorul ah? dundal melentaan bii. ci biir géej gii. moo yor jaamam bi. yor jaamam bi. kenn yorul leen ku dul yàlla. kenn ko la son. def ko la son. bëgg a wax mooy. kon li tabax loolu dëkkee ba mu jeex. tabax loolu dëkkee ba mu jeex. tabax loolu euh, denc loolu dundee. denc loolu dundee. boo xëyee dee xiif. boo xëyee dee xiif. boo xëyee dee xiif. boo xëyee dee xiif. jaamu bokk yi di dee ak xiif. jaamu yàlla la de. jaamu yàlla la de. waaye am na lu ko gën. waaye am na lu ko gën. kon nañu nañ bàyyi xel loolu. kon nañ bàyyi xel loolu. nañuy bàyyi xel suñu diggante. nañuy bàyyi xel suñu diggante. nañ bëggante. nañ bëggante. bëgg yàlla. nañ bëgg yàlla. yàlla nag ku ko bëgg. yàlla nag ku ko bëgg. da nga ko uutee nu ne. da nga ko uutee nu ne. saxaaba yi. saxaaba yi seen dund yëpp. seen dund yëpp. dañ ko dépensé. dañ ko dépensé. ca la góor ga waxoon ca la góor ga waxoon si Ibrahima Niass Baye si Ibrahima Niass Baye wax na yonent wax na yonent yàlla moom ne ko wax na yonent yàlla moom ne ko ne ko wër naa adduna bi yëpp ne ko wër naa adduna bi yëpp de seet fan nga gën jege de seet fan nga gën jege ma taalal sama loxo ma taalal sama loxo ñaan la foofa ñaan la foofa wooxee la foofa wooxee la foofa allahu akbar kabira allahu akbar kabira wër naa adduna bi yëpp wër naa adduna bi yëpp de seet fan nga gën jege de seet fan nga gën jege ma taalal fa sama loxo ma taalal fa sama loxo woo la yow Muhammad woo la yow Muhammad ndax sopp gi ma la sopp ndax sopp gi ma la sopp ñun ñun amuñu loolu. ñun amuñu loolu. nañ wër nit ñi ñëpp. nañ wër nit ñi ñëpp. seet ban nit moo gën jege yàlla. nit jox ko suñu loxo. ñu jox ko suñu loxo. ndax ñu am yàlla. ndax ñu am yàlla. soo koy def nag. soo koy def ci miskin yi. ndekkeel ci miskin yi. ndekkeel ci ñi nga tane. ndekkeel ci ñi nga tane. leen dimbale. nga di leen dimbale. di leen yërëm. di leen suturaal. te nga moytandiku gis sa bopp. te nga moytandiku nag gis sa bopp. moytandikul doomu aadama. bu gisee boppam. bu gisee boppam. alku. alku. kenn rek moo gis moo war gis boppam. kenn rek gis boppam. te ba léegi ko. te ba léegi gisu boppam. mooy bi bind bi dee yàlla bi bind bi dee fi. yàlla. yàlla. li nguuram ngay lim bind li bare bare bare bare. talagul xam talagul calculer boppam. talagul calculer ak lim bind. ak lim bind. xam nga kañ lay gis boppam. xam nga kañ bu nit ñi deewee. bu nit ñi deewee. ba lépp dee. ba lépp nekk tàlli. suuf si nekk tàlli. as jant bi kalaatee. jant yu toj. bu biddiw yu toj. doj yu toj. dara dootul am. dara si nekk benn tàlli. ku ko yàlla fekkeloon ku ko da nga mën gis mille kilomètres da mën gis junni montagne du am ndax garab du am am poussière du am foofa la yàlla lay bàkkoo foofa lay bàkkoo nag. 40 ans lay bàkkoo. yéen wax foofa. li mën nañu mulku al yow te foofa lay jotee. te yàgg. moo boobu dana ko wax ñaar fukki at. moo boobu dana ko wax ñaar fukki at. mën nañu mulku fukki at. ñaar ko yàlla lay wax. la ko yàlla lay wax. kenn yënguwul. kenn du yonent yàlla Muhammad. du du Seexu Tijaan. du kenn. du kenn. nelaw. du kenn koo yaakaar kenn koo yaakaar. ñëpp ak ci biir suuf si moom rek tundum. ba moom tundum. muy bàkku. ne limanil mulk mulk al yawma. 40 ba yàgg mu tontul boppam ne lillahi lwahidul qahar man rek may buur tey foofa lay fëggee dënam dana fëgg dënam ñaar fukki at ne lillahi lwahidul qahar kon ñun fëgg dënn teel na si nun nañ bàyyi xel loolu gis sa bopp li muy alak ci doomu aadama dara jaru te mooy xamu maag daf ma yebak lu ma moromam ma moromam. yoo xam bul xam koo xam ne kii du sa morom. bul xam koo xam ne du sa morom. ki la kii maye. kii maye mooy yàlla. mooy yàlla mu denc ci ci jaamam bi ci jaamam bi. moom rek moo ko xam am na benn waliyu bu mag. na benn waliyu bu mag. bu mag a mag a mag. ku bëgg jumaa. dafa dem une heure ci jumaa ja. dafa dem une heure julli. te deux heures la julli. rek biiram commencé daw. rek biiram commencé daw. bi une heure demi jotee. bi une heure demi jotee. bi sawal jotee. biir bi daw. biir bi daw. mu jaaxle torop. mu jaaxle lool. xam ne bu demee ca kër ga. defar boppam. dana tànn juma. dana tànn juma ji. te bëggul tànn juma. te bëggul tànn juma ji. ci xelam lay wax. ci xelam lay wax. jaaxleem. jaaxleem ak léppam. bu toogoon ci moom. benn xale bu toogoon ci moom. xale bu rafet xale bu bu rafet lool. ku làpp lool. ku yooy lool. daal di tas kaalaam. daal di tas gi. góor gi kaala rek góor gi ay duus. rek góor gi ay duus. ak robinet ak robinet ci biir kaala gi ci biir gi. waaw. allahu akbar kabir def lam bëggoon def yëpp. góor def lam bëggoon def lépp. jàpp. jàpp waa ji muri kaala gi. waa muri kaala gi. mu ñëw ci biir jumaa ji. mu kon bu pour wal ni yàlla. kon wan la pour wal na yàlla. ay ay dencam. te adduna dafa wóorul. te adduna dafa wóorul. buñ jógee koo fii. buñ jógee koo fii. wala bu ñu reeree ba pare. wala bu ñu waxtaan. ba waxtaan ba tasaaroo. dem tëddi. amul kenn ku xam sa morom lu muy fanaanoo. amul kenn ku xam sa di fanaanoo. kenn xamu ko. kenn xamu ko si ñun. amul kenn ku xam fu sa morom di fanaan. amul kenn ku xam fu sa di fanaan. kon nag. kon nag nañ teey. nañ teey. nañ teey nañ teey yàlla ak ni muy organisé amul kenn ku xam fi sa morom da fanaan amul kenn ku xam fi sa morom di fanaan amul lu muy fanaan amul set ngeen gisee ngeen gisee ngeen nuyuwante li si jaar bari na de li si jaar bari de li si yàlla man bari na de li bari na de ay dencam bari de ay kattanam rëy na de kon nag kon nag kuy xalaat loolu. kuy xalaat loolu. dootoo dootoo yàqu. dootoo yàqu. ndax dootoo gis koo xam ne yaa ko gën. ndax dootoo gis koo xam ne yow yaa ko gën. da ngay defe ne ñëpp la gën. da ngay defe da ngay defe sax ñëpp la gën. te feeg yaa ngi yaakaar koo gën ci suuf si. te feeg yaa ngi yaakaar koo gën ci kaw suuf. rek doo dara. rek doo dara. yonent yàlla Muhammad. yonent yàlla Muhammad. li ko yàlla musalee. li ko yàlla musalee. musul defe ne moo gën ci nit ñi. musul defe ne moo gën ci kaw suuf. bi sahaaba yi. bi sahaaba yi. di wax nga ne la yonent bi di wax nga la yonent yàlla na leen def na leen laa tufaddiluuni laa tufaddiluuni xaalaa Yunus bun Matta xaalaa Yunus fa innahu fa innahu fi bannil huuti fi bisaatil xaq fi ma gënalee kenn bu leen ma Yunus Yunus la ma gis sa péeb yàlla ma gis ko gisee ca biir jën kooku lim doon daw. kooku lim doon daw. mooy tafaadul. mooy tafaadul. gën lante. gën lante ci adduna bi. adduna bi. koo defee ne yaa ko gën. koo defee ne yaa ko gën rek. nax nga sa bopp. nax nga sa bopp. ki nga gën. ki nga gën. yàllaa ko xam. yàllaa ko xam. in akramakum. in akramakum. indallaahi. indallaahi atqaakum. atqaakum. ngëneel bi am solo. ngëneel bi am solo. ci yàlla la nekk. ci yàlla la nekk. mu ngi ci ki gën ragal yàlla. mu ngi ci ki gën ragal yàlla. ci ñun. ci ñun.